réalisé fi centre bu mel je pense depuis indépendance euh, bu Sénégal mosuñu am lu ni mel mooy réaliser centre boo xam ne day tàggat nit ñi parce que dañuy faral di wax nit ñi amuñu liggéey ou bien les bëri ay mais comme nous avons ko les chômeurs ont chômeur qualifications et am qualification emploi donc je pense que nous la ñu nous Nous dinañu former nit ñi de tourisme si mbirum hôtellerie il y a un hôtel depuis presque les années 1972 a créé Cap une zone touristique Cap Skirring mais aussi y a un hôtel de bénéfices fii si biir Ziguinchor ak si Mais nous yi mais ñu fay formation donc euh, loolu defe de la construction centre bi ñëw vraiment combler vide boobu de telle sorte que euh, dinañ gën a am un personnel plus beaucoup plus qualifié ci restaurant yi dinañ am benn personnel plus qualifié ci hôtel yi ci service bi euh, ci néeg yi fépp foo xam ne en tout cas concerné le tourisme dinañ fi am ay ni ñoo xam ne tàggat nañ leen formé nañ leen ñoom ñoo ñoo fay liggéey donc loolu defe naa lu rafet la en tout cas ñun ñu ngi koy ñu ngi siy bu baax a baax nga xam ne ñooy ville boo xam ne foofu la centre bi di nekk te aussi ñu soxla formation bobu euh, di félicité wu rek di rafetlu euh, collaboration bo xamné ne amoon am état bi parce que aussi mairie bi c'est un démembrement de l'état donc bépp projet bo xamné état amna ko mairie bi wala ko si accompagner mais aussi chambre de commerce parce que lëkkaloo diggante mairie ak chambre de commerce moo tax ñu am espace bi am terrain bi donc pour réaliser projet bi di am yaakaar ni projet bi dina gëna a yaatuwaat fii en tout cas ñu gëna a yaatal mbir mi pour que centre c'est vrai que c'est un centre satellite mais dans les années à venir on est un centre aussi de référence noms des ne dina nous a former ñuy jóge du Sénégal mais on y a un aussi à Guinée Bissau sont ne suñu ay dëkkandoo lañ waa Gambie ay yeneen Gambie. mi dinañ fi mën a pour les personnes personnelles. personnel.